docteur Barnabé Gningue maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna si. yow yaay coordonnateur euh, programme national de lutte contre la tuberculose fii ci Sénégal euh, tey ci talaata ji la àdduna yëpp di jagleel euh, bés bi nga xam ni moom la ñuy ànd di xeex lii di tuberculose muy feebar bi ñuy màndargale sëqët si yow en tant que coordonnateur tey lan la ñu mun a jàpp ci feebar boobu ci Sénégal. maa ngi lay sant di la di la gërëm li ñu mën a jàpp moo di ne jàngoro tuberculose. Euh, jàngoro boo xam ne dafa soxal nguurum Sénégal euh, mu jaare ci euh, ministère de la santé de l'action sociale ba tax ministère boobu taxawal programme national de lutte contre la tuberculose muy ñoo xam ne ci loolu daanaka lañuy ñuy liggéey at bi yëpp li ko waral moo di ne jàngoro bi ba léegi dafa law biir Sénégal te ñëpp ñi yore jàngoro boobu yegg seeguñu kër docteur ndax ñu mën leen a euh, taxawu euh, ni mu waree ñu ngi nag ci ci ay weer yoo xam ne jàngoro boobu jógee ci coronavirus moo moo moo mooy lëmbe àdduna si te mooy euh, moo ñu soxal ñun ñëpp waaye terewul suñu kilifa monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale nee na lépp li nga xam ne jëm na ci fajum tuberculose bu leen ko bàyyi donte coronavirus mu ngi fi xool leen nan ngeen di Euh, defaraat seen liggéey ba nga xam ne ñi nga xam ñi nga ñi am jàngoro tuberculose euh, bu ñu ñëwee nañ fekk euh, jumtuwaay wi nañ fa fekk ndaw la ko docteur yi ñu mën leen a taxawu mën leen a déglu mën a seet seen yaram bu fekkee dañu am tuberculose ñu mën leen jox garab yi nga xam ne ñoom la ñu war a war a fajoo kon ci 24 mars vingt bi ñu ngi fàttali ñëpp ne. donte coronavirus mu ngi fi liggéey bi nga xam ne moo jëm ci xeex jàngoro tuberculose Sénégal liggéey boobu ñu ngi koy wéyal ci suñu kër docteur yi. tey ci ñaata la mën a xayma docteur ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro yu tuberculose ci Sénégal. ci suñu xayma euh, jàpp nañu ne foo jëlee téeméeri junni euh, doomu aadama yu dëkk Sénégal euh, téeméer ak fukk ak juróom-ñett am nañu jàngoro tuberculose waaye yemuñu foofu. bi ñu gënee xóotal euh, gëstu bi gis nañu ne li gën a bëri ci ñi am tuberculose Sénégal ñu ngi si juróom-benni diiwaan yi ma la bëgg a limal muy diiwaanu Ndakaaru euh, Njaareem euh, Kaolack Fatick Ziguinchor ak Ndar Saint-Louis ci juróom benni diiwaan yooyu jàpp nañu boo amee téeméeri nit yi am jàngoro tuberculose fii Sénégal juróom-ñett fukk yi wala lu ko romb tuuti ñu ngi ci biir euh, juróom-benni euh, diwaan yooyu mu des yeneen ñaar fukk nit ñi am jàngoro bi ñooñu ñu ngi ci biir euh, juróom-ñetti diwaan yi des ba tax na ñetteelu gëstu bi moo di moo ñu won ne fekk fu ñuy xaar téeméeri nit yu am jàngoro tuberculose fii ci biir Sénégal daanaka fanweer bi gisaguñ ko. te fekk gisaguñu fanweer yooyu am jàngoro tuberculose bi kon jàngoro bi day gën di sax ci biir réew mi jàngoro bi day gën di law ci biir réew mi te ñun dañoo war a xeex fexe génne jàngoro bi Euh, génne ko Sénégal bokk sax ci li koy génnee ci àdduna si. alors docteur euh, feebar bi euh, ci atum ren ni koy xeexee bokk na ci li ko mandargaal thème bi ñu ne il temps maanaam jot na loolu nag di wundu li nga xam ne xëy na moom la kilifa àdduna bi yëpp digaale woon ak OMS ngir jëlee fi feebar bi di tuberculose yooyu engagement lan la ak suñu réew fan la ci toll. suñuy kilifa bu ñu demee ba ne jot na. am na lu ñu sant ndax jot na boobu ñu mën koo fësal waaye ñu gën koo euh, doxal ngir gën a xeex jàngoro tuberculose bi ci jiitu suñu kilifa dañ dañoo wax jox ñu ndigal ñu liggéey ndax àdduna si mën a dund te dootul yoo yore tuberculose maanaam tuberculose dootu fi dëkk ñaareel bi dañoo war a gën a diglu ñi nga xam ne ñoom ñoo yore jàngoro bi maanaam ñoom ñoo feebar ndax nit ci feebar nag moo gën a mën nettali feebaram nan fan la ko tollu nan la koy yégee lan la koy yàqal ak lan la koy xañ ñetteel bi lépp lu jëm ci aar nit ñi ci feebar bi lépp li jëm ci ku am feebar bi ñu faj la ba nga wër peng ak lépp li jëm ci fexe gox bu nekk ak gox goxaan bu nekk ñu génne fa jàngoro tuberculose ñu gën ci liggéey ñeenteel bi lépp li nga xam ne suñuy kilifa wax nañ ko Euh, jëmale ko ci xeex jàngoro tuberculose fii ci Sénégal ak ci biir adduna euh, si ñu war a taxawal ay matuwaay yoo xam ne mooy tax fu ñu toll ñu xool yan jéego lañ ci jotee dox ak lan moo des ci liggéey bi ñu gën war ko gën a dooleel su ko defee waxtu liggéey moo taxaw waxtu liggéey euh, moo jot te waxtu liggéey boobu xëy na ñëpp dañuy séentu naan kër docteur lay jóge ci ndawalu kër docteur lay jóge waaye askan wi kenn jiitu leen si ndaxte ñi am jàngoro tuberculose ñu ngi ci biir askan wi. askan woowu am na rôle bu am solo buñ ci war a jouer ndax ñenn ñenn ñi nga xam ne euh, dañuy ragal a dem mooy ñu ñuy beddi wala ñuy gis ñuy beddi keneen li tubaab naan stigmatisation est-ce que loolu ci xeex bi yéen am ngeen ci ndam maanaam jëlee ngeen fi beddi googu. jëlee guñ ko fi bu mu set wecc. waaye gis nañu ne mu ngi dellu ginnaaw. mu ngi dellu ginnaaw ndaxte bu njëkk ñun waa Kër Docteur ñun dong ñoo doon wax bu bu kenn beddi ko am tuberculose tey ne. ñu ngi ni yéen taskatu xibaar yi ak yeneen nit ci biir askan wi ñu ngi gën di ràññee ne euh, ku am jàngoro tuberculose kenn waru ko beddi ñaareel bi ñu ngi fàttali ne ku am jàngoro tuberculose bul ragal dem faju ji demal ko docteur muy hôpital muy centre de santé muy clinique muy hôpital privé muy post de santé muy case de santé fépp fu am ko docteur demal ndaxte faj bi li koy li wane danga am feebar bi tubaab bi koy diagnostic doo fay li euh, garab yi ngay fajoo doo leen fay ñetteel bi ku am jàngoro tuberculose bul rus a dem faju ndaxte nekkul jàngoro boo xam ne dañ ko war a rus soo wone nekkul jàngoro boo xam ne dañ ko war a rus a euh, waxtaanee nekkul jàngoro bu ñu ñuy bu ñu buy ndax jàngaro bi li muy bañ mooy ku ko weer kon ñu ngi ñaan askan wi nañu weer jàngoro tuberculose ndax ñu gaa ko fay jëlee ci kattanu yàlla. yaa ngi wax sànq ne du benn façon wu tuberculose rek moo am. waaw euh, ñu bëri dañoo jàpp xëy na sax dañu ko gën a miin ne jàngoro tuberculose mooy bi jàpp euh, xëtëru nit waaye am na yeneen xeetu jàngoro tuber tuberculose la ba léegi waaye doomu jàngoro bi mën a dem dëkk ci biir yax yi muy tuberculose ya euh, bu jàpp yax mën a doon tuberculose buy dem ci biiru nit mën dem sax tuberculose boo xam ne day dem ci yuuru nit ki maanaam jàngoro tuberculose doomu jàngoro moo koy joxe doomu jàngoro boobu bu duggee si biir yaramu nit ki mën na mën na daanaka dëkk ay bërëb yu bari ci biir nit kooku. moo tax am na solo ñuy fàttali ne ku seetlu daal ne mës ngaa laale ak ku am tuberculose demal ko docteur ñu mën a nemmeeku sa yaram xool fan la toll te bu ñu fa gisee tuberculose garab yi ñu koy fajee wax dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax nguur gi indi na ko ba tey nga dem. Euh, dëpp diwaan ci biir Sénégal mooy quatorze régions administratives yi euh, garab yi koy faj ñu ngi ci biir région médicale yi mu ngi ci biir district mu ngi centre de santé mu ngi mu ngi mu ngi ci yenn poste de santé yi sax loolu yëpp bëgg liy faj jàngoro bi gën a jege askan wi ndax faj bi daal doole. Mhm. te traitement bi kenn du ci fay dara. traitement bi doo fay diagnostic bi doo fay. d' accord docteur beneen jafe-jafe bu ñu wax ne dangeen di faral di ko jànkoonteel mooy ñiy tàmbalee faju ba pare euh, réer mër dootuñu leen gis te fekk ne wéraguñu bu baax ndax loolu mi ngi am ba léegi. loolu mu ngi am ba léegi te euh, ñu ngi ñu ngi gën di liggéey ndax loolu mën a mën a dakk te loolu mooy fàttali ne su fekkee ñun waa docteur. ñun ñoo yori jumtuwaay yi tax ñu xool benn nit ki dafa am tuberculose bu fekkee ne waa kër docteur ñun ñoo garab yi faj tuberculose billaay day fàttali ne askan wi kenn mënu leen euh, remplacer ci xeex bi nga xam ne mën nañu ko xeex bi mu biir Sénégal li ko firndeel moo di nit ki buy ñëw kër docteur ab kër lay jóge nit ki bu jógee kër docteur kër lay dellu kon ñamu dëkkal. waa këram ñamu dëkkal euh, waa koñam ñamu dëkkal waa goxam ñooñ ñëpp bokk nañ si ñi nga xam ne ñun ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñi am tuberculose ndax ñu mën leen a teel a xamee teel a ràññee ñu mën leen a gën a teel a jox garab ñu gaaw a wër ci jàngoro bi loolu bokk na ci liy jëmale euh, tuberculose euh, ci biti. Mm-hmm. donc ñi nga xam ne jot nañoo tàmbalee di jël garab yi ñu leen di ñaan. bu ñu mus a bàyyi mukk bu ñu amee sax ay jafe-jafe ci paj moomu nañ ñëwaat ko docteur ñu gën a waxtaan ak ñoom xool nan leen di gunge ba seen naanum garab boobu mën a yegg ak jàmm ñoom tam ñu mën a war mën a wër mën a dellu seen euh, njaboot mën a dellu seen liggéey te loolu di jëmale Sénégal kanam. docteur ñi ngi fi mu ne coronavirus rek la ñëpp di waxtaanee waaye ni nga ko waxee sànq yeneen feebar yi ñu ngi fi ñu ngi continuer aussi di lor askan wi tuberculose mi ñu ne bokk na ci li ëpp li muy faat bu ñu sukkandikoo ci OMS euh, taux bi nga xam ne moom la tuberculose di faat tey fu ñu ko mën a xayma ci sa xalaat. xëy na euh, saa waxee feebar. Euh, yenn xel yi moom mënul ñàkk a dem ci ci ci faat bakkan euh, waaye ñu ngi sant yàlla fii ci Sénégal euh, donte am na ñoo xam ne tuberculose mooy faat seen bakkan nekkul loo xam ne tey moo jiitu ci li ñu seetlu li ñu seetlu ci ñi am jàngoro tuberculose maa ko sànq ne téeméeri nit yoo jël téeméeri junni nit yoo jël mën nañ caa fekk téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñett yu am tuberculose. ñaareel bi mooy xeetu jàngaro tuberculose dañ koy wuutalee jaare ko ci xale la jot wala mag la jot jigéen la euh, dal wala euh, góor la dal ak itam euh, ban wàll ci yaram bi moo am jàngoro tuberculose moo tax du ñu joxe benn ma ne bii moo la ñuy xoolee ñëpp ñi nga xam ne tuberculose moo mooy mooy faat seen bakkan saa ñu amee koo xam ne tuberculose moo faat bakkanam dañ koy jéem méngale ci at yi mu am wala ñu méngale ko ci ban xeetu tuberculose la maanaam tuberculose xëtër bi la tuberculose bii dem ci yax tuberculose bii dem ci yuur donc am na waaye nekkul li jiitu nekkul li gën a li gën a fës kon loolu itam daf ñuy may ñu gën a wax nit ñi ne donte ñu ngi ci biir euh, jamono coronavirus te yal na euh, gaaw a dem yal na jamono coronavirus gaaw a jeex. amiin euh, kër docteur yi faj tuberculose ju seen bunt. ndawal kër docteur yi faj tuberculose tooguñu kër ga ñu nga fa dem leen ñu seet leen dem leen ñu faj leen bu kenn ragal te bu kenn du sa dem lii dem moo ñu yaakaar ne mooy dooleel xeex jàngoro tuberculose fii ci Sénégal ndax ñu gaaw ko fee génnee bu soobee yàlla. d'accord euh, mille morts di ñeenti junni nit yu faatu bés bu jot ci tuberculose loolu la ñu gis euh, bu ñu yëree euh, surtout organisation mondiale de la santé ndax chiffre boobu mënees na koo jàpp bu ñu xoolee li nga wax fii ci taux de létalité bi ci Sénégal. organisation mondiale de la santé bu ko waxee rek am na fu mu ko teg te mën naa wax ne ñi tuberculose di faat seen bakkan fii si Sénégal bokk nañu ci ñooñu. Mm. yal na yërëm. waaye di dellu si di wax ne nekkul loo xam ne tey day day téye wala day yéexal suñu liggéey dafa tax sax ñu gën a sawar xam moo tax. Mm-hmm. nit ki lu muy gën a teel ñëw kër docteur ñu koy gën a teel a seetal ndax dafa am jàngoro tuberculose seet boobu lu muy gën di teel paj bi di gën di teel. Mm-hmm. paj bi lu muy gën di teel di gën a am doole. wér tamit gën a yomb bi lu mm-hmm. euh, wër bi di gën a gaaw nit ki mën a dellu ak jàmm ci njabootam ak ci liggéeyam. alors ci bésu tey bi euh, dëgg la ni ma ko waxee sànq coronavirus moo gën a fës waaye du ñàkk yéen itam euh, ci talaata ji ngeen wane ne tey la war ñëpp war a gën a takku ngir xeex tuberculose lan mooy programme bi ci Sénégal. Euh, suñu njiit monsieur le ministre de la santé de l'action sociale fàttali nañu ne lépp luy dajale ay nit dañ ko war a moytu ci jamono coronavirus bi ñu nekk te xam nañu lan moo tax. ñu wëlbati ko nag ne segem benn fan la ñu waroon xëy na def. luy fësal ne ñu ngi xeex tuberculose fii Sénégal nañ jël ne li ñu waroon def ci benn bés nañ ko def fii ba at bi di jeex maanaam ren moom 24 mars du doon 24 heures 24 mars day doon ay weeri weeri weeri weer yoo xam ne dañ ciy def yëpp yu mu ci waxtaan ngir xeex jàngoro tuberculose dañ ciy yokk lépp li nga xam ne liggéey la ci biir gox yi ci biir gox goxaan yi. ngir ñu xool nan lañ fay xeexee euh, jàngoro tuberculose ndax mu gaaw a génn ci gox yi mu gën a gaaw a génn ci gox goxaan yi euh, Sénégal mën a am ndam ci xeex boobu muy xeex euh, jàngoro tuberculose. xëy na kon nii dinañ waxtaan ak askan wi jaarale ko ci yéen askanu xabaar yi dinañu gën a waxtaan ak askan wi ci bu ñu ñëwee kër docteur ak ñun bu ñu leen fekkee ci yéen i bërëb yi waaye dañuy fësal fësal itam ne waxtaan boobu du yem ci 24 mars bi dong. dañ koy wéyal semaines yi ak weer yi ñu jumal euh, loolu yëpp euh, ngir am yaakaar ne askan bi lu muy gën taxaw rek xeex bi di gën a am doole euh, ndam bi ñuy bëgg a am ci tuberculose ñu mën ko téye ci loxo bu dëgër a dëgër. jërëjëf docteur Barnabé Gningue ñu fàttali ni yow yaay coordonnateur programme national de lutte contre la tuberculose ci Sénégal ñu ngi lay sant di la gërëm amoon nañu mbégte dalal la. jërë ngeen jëf yéen tam bu baax a baax.